Ah, ay waay féexal sab xol ah original neexal pot te am original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan ngi yegsi fay say facture moo ci gën original neexal pot te am original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan ngi yegsi fay say facture moo ci gën ngeen jëf mbokk internet yi mbokk téléspectateurs yi mbokk amateurs yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare fii ci restaurant Le Calom bu fi ñëwee nag Gaston Production ñoo ñu fi indi fas yéene taxawal CLAF 2024 2025 comme ni ko defee woon ren ci 2023 2024 bi ngeen gis ni bëri nañu ba egg final doxoon ci diggante Doudou Sané ak caatu Yaraax champion 2024 bi ku ne xam na ni Doudou Sané la ñu fas yéene taxawalaat nag beneen poule bu yemoo ak boobu noonu ñaq jariñu ci poule A bi Petit ci poul A bi bébé guy gi ak Tmax ñoo ñooy nekk ci poul A bi waaye poule B bi jombul ni suba wala ginnaaw suba insha allahu rabbi danañ ko taxawal jamono yi nag amoon na problème finaal ndax day am wala du am manager yi ñoo ngi ne taxaw Abdoulaye Ndiaye mu ngi nii toog Makan aussi mu ngi nii toog loolu bokk na ci li ma gën a ñor nag ci poul bi waaye danañ ko waxtaanee incha allahu rabbi mais Modou Anta balaa dara damay jox non waxaguma loolu waxu contrat man waxaguma am waxu contrat de kaay. faire pala ma jama jóob jama kaay taxaw nii maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar. Mouhamadou Lamine maa ngi lay fay. maa ngi lay fay di am kontantement ci daje bi ñu daje fii tey di bis boo xamante ni bis bu rëy la ci waa làmb waaye fii ñu ñëw tey duñu fi jommi léegi bi ñuy ñu ñëw maag Abdoulaye Ndiaye laa ko naan 2006 ba 2007 2008 tali bii daanaa fi jaar yéeg montagne bi jëm kër. suñu mag ju baax ja yàlla na ko yàlla xare àjjana heure bu nekk jaar nañu ko fii di dem këram première calaf 2006 keroog bi ñuy jox avance yi deux heures du matin la ñu ko jox kees gi def xaalis bi maa ko yenu ñu yéegal ko ci kaw booba temps Jacques Dieng a nga ca woon ku mel ni Mbay Cuun mi ngi fi ku mel ni Baabu ma nga ca woon yaa rax mu bàyyi yéeri jaxatee nga ca woon Aline Sey mi ngi ca woon ah Mbaye ak man mi ak doyen Moustapha Diaw ñooñu ñëpp ñu ngi woon ci kalaaf boobu ñu réussir ko tey yaakaar naa ni la mu initié woon daanaka ma ngay bëgg a jege ñaar fukki at uh-huh. mais ba léegi mooy dundal làmb kan mooy roi des arènes ñu ni bokkoon na ci kalaaf ba kan mooy la de Guiers ñu ni bokkoon na ca kalaaf ga kan mooy Tapha ñu ni bokkoon na ca kalaaf ba mm. kan mooy ancien roi des arènes Balla Gaye ñu ni bokkoon na ca kalaaf ba mm-hmm. ana ñoom booy sëy ñu ni ña itali Italie mm-hmm. ana euh, euh, Balla Diouf mm-hmm. ñooñu ñëpp ak bàcc séras nga xam ne ba léegi dagal naa sax combat dana taxaw léegi ñooñu la Gaston jëloon nag yóbbu leen ñu liggéey làmb rénové ko ba tey jii ku nekk di xëccoo di coow wala ngay wax waaye coow li coow li Gaston production la. waaw tiré ngeen leçon ci lu weesu xool li ngeen di signé xam ni final dañ ko soxla ci combat bi sans ma ni mag lu ko rey bu dekkee. teggi ko teggi ko ku gis li nekk ci contrat yi nga xam ni jubadi bu amee kay dañ naan jubadi dikk na rek waaye jub jubal mi ngi ci biir contrat bi kon nag final la ñu wax. tournoi la ñu wax fair play discipline ba finaal force reste à la loi jërëjëf force reste à la loi Cheikh Abdou Lahad Ndiaye am kàddu gaa ngi noonu ñu ngi leen nuyu yow tamit bu baax a baax lan nga ci yokk. yokk gi d'abord santaat yàlla di julli ci yonent bi di ñaan ci réew mi jàmm ndax avant tout la paix lu dul jàmm jàmm gu gën ñu ngi ñaanal Gaston Mbengue yàlla na ko sunu borom xaare ci àjjanay Firdawsi duñu tay di ko ñaanal ndax topp nu kenn moom la ñuy topp ci li ñu ne di ñaanal suma frère. ci courage bi mu am muy Makan Mbeng courage bi làmb ku ne xam na ni am na métier jàng na am niveau mën a nekk ci leneen waaye li nga xam ne da nga ko fekk ci kër gi ñu jël ko jox la ni la doxal ko te kilo ko dénk doxal ko door fay jógee amuloo droit arrière amuloo droit récupé reculer kon du ñu man rek lu dul liggéey mais ñu ngi koy félicité di ko ñaanal yàlla di ñaan aussi partenaires yi ak sponsors yi nga xam ne dañu am confiance ci moom bi may jëkk rek mooy wan expert bi nga xam ne lu Gaston production liggéey di ko def ci làmb di ko may askanu Sénégal saa yu ñu amee làmb ngeen koy seetaan en direct one xbet moo koy may askanu Sénégal loolu nag ci ay relation Makan Mbeng ak ay am di jàmmam ñu am courage lool am yéene pour jàppante ak Gaston production te duñu ko ci moo waral tey jii ñu jóge ci CLAF matagul un mois mu amaat courage yu ñu andiwaat. poule A ko présenté tey ma koy wax rek la ma waxoon laay waxaat boo gëstoo seen ma suma la jiitoo taxaw xaar la yàlla na ko suñu borom defal jàmm dolli ko sutura ndax wolof day wax ni koo xamul noo ko def nom la defa tax ñuy nuyu mbër yi toog fii ku ne xam na ne comme euh, ku seen affiche bi seen poule bi xool champion yi xam ne ay mbër yu dooy waare ci dajaloo ku ci nekk mën naa lim ma am faalewul ki ci des moo waral ñu boole leen defuñu choix pour lu neex kenn tey ji bu ma xoolee dama naan ñàkk jariñu pourquoi ñàkk jariñu peut-être am na tuuti mu xaw leen tuuti ancien jiit leen tuuti ci làmb waaye làmb du maas tabante jiitu taxul nga mag ma mën ngaa jëkk bëre ñàkk jariñu tey bu jógee sam-sam gépp topp ko caaro yi topp ko ba ba ngay dem lamsaar jàmm gën dañu koy topp xale bu mel noonu moo nekk ci poule A bi nga ñëw ci côté bi am fii Petit Niang ñàkk jariñu ka lay engagé ñu ni Paala jóop ñu ni Paala Diop nga xam ne sunu doyen la bokk ci regroupement national des ménagers de lutte di ci doxal lu am solo ñeme lool am fulla am fayda ci boppam parce que dama jàpp ni un manager boo nee boo yow yaa décidé ne manager la Lamine micro nga taam kon li nga décidé ni moom nga bëgg da nga koy topp dem ci ba jeex taag kooku mooy engagé ñàkk jariñu waaye petit di xale boo xam ne mi ngi jóge rudde buun di xale boo xam ne yaa mi ngi jógee route de Boune xale boo xam ne bu jógee Boune gépp topp ko yëmbal ñëpp ànd ak moom waaye ki koy ménager mooy le président de tous les ménagers du Sénégal di El Hadj Bourkhane Wade xale bi nga xam ne aussi mooy bébé guy gi nga xam ne bu jógee géej waaye jóg damay wax ne baaji naar ak fi nga xam ni yëpp wax dëgg yàlla ba marché xel koom foofu yëpp xale boobu la ñuy topp muy ne xale boo xam ni turandoo guy gi la guy gi di léppam xale boobu bokk nekk ci école Mor Fadam tey jii xale boobu war a ñëw nekk ci sunu keppaar comme ni ci xale yëpp nekkee war a ñëw bëre si. kooku nag mooy bébé guy gi di xale bu doy waar dañuy sotte Mamor la bëreel bu lay tigir te Mamor ndaanaan la boo xam ni xale bu ko daan rek mën ngaa bëree waaye dafay am koo xam ne Tmax wax naa ko xaw ngaa toj suñu tournoi bi saa yoo ko dugalee xale yu bari daw génn ma ne ko xale yi ragal ci daal war nga ma ko wax waaye Tmax saa yoo ko joxee combat ragal ko mu génn ci. combat yi nga gën a tiit souvent yàlla da ko ci defal ndam muy xale bu am jom lool maa ngi ko benn combat bu mu bëri ji keroog bi mu koy bëree jom ko bëree dafa feebar ba pare ñëw bëri si te loolu bareetul ci làmb loolooy ngor am jom te loola boobu man mii rek maa xam ne xale bi wér wérul mais dafa am jom xataraayu xeex benn bi da ko daf cee gagné beneen bi mu ñëw ceeg feebar mënu cee génnu ci te bañoon yàq journée te loolu ngor la bu ko neexoon ut médical su ko neexoon arrière te yooyu na ko nit ñi di yóbbaale léeg-léeg nga dégg mbër damaa bëri waale perte lii damaa ak blessure lii daf blessure bi daf ma dab après le combat nga wax ko loolooy jàmbaar xale boobu tey jii nga xam ne Saourou Fall la koy engagé lii di poul A ñuy ñaan yàlla sunu borom defal ñu ci jàmm Gaston production nag la ma waxoon dama koy tàyyi di ko waxaat sëñ Ablaat sama turandoo day wax ni loolu ni cas mu dëgër ba ko fa xam ne sa wàll néewu ci waaye li nga moom boo xëccee mu dikk boo xëccul mu dikk kon nag yàlla nañu yàlla may ñu dajeek li ñu xam ne mooy suñu wërsëg ndax fawum xaalis la xëccoo mayewul dara da koy yàq te nu xëccoo nu kare te kuy def fukk bëgg ci benn boo sañoon la ngay dugg danga ko xool kon moo tax ñun li ñuy liggéey defuñu ko ñëw ci gratuite Gaston Production dafay liggéey structure la structure bu fi yàgg la te ki ko téye woon fulla la la ko téye ak fayda ñim fi bàyyee mat nañ li ñu doon te am nañu jom am la am fayda dégg nga lépp lu ñu engagé ak nit dañ ko respecté yaa ngi wax naan problème amoon na ci CLAF problème amu fi même contrat bi mu nekkaat nii dara changé wul képp ku dugg ci CLAF xam nga ni ñaari poule la poule A poule B dañuy daje final loolu mooy li fi nekk mësul changé damay wax ni fi jamono toll képp kuy moytu coow mbaa nga di ko daw génnal réew mi ku ba daw coow hmm. génnal réew mi. li ñuy bañ mooy ngay wut coow waaye daw coow moom ko bañ génn réew mi soo bëggee daan coow dal sa kaw ba bëggul daañ coow dal sa kaw te it nga bàyyi xel leen gars yi coow ñu ko toog kër ngay naan ataay li jënti woo kenn waaye képp ku yëngu te bëgg dara na daañ la tudd ku bañ ko la tudd génn réew mi ñu fi gën a tedd ke ñañ leen di tudd Gaston Production buñ ko tuddul te tey mën naa la structure yëpp yàlla def na moo ne ci kanam moo ci mag kon tey kooku buñ ko tudd ku ñuy tudd nun nag sunu borom dafa wax ni way muñ kat yi la muñ nañ lépp ànd ak sénégalais yi diaspora ñi ngi leen di nuyu à travers le monde sponsor leader lañ ci gas Gaston Production parce que tey aujourd'hui bu ñuy jaay pay-per-view à l'étranger ñoom dañ koy jënd et pourtant ñu ngi koy may ci biir réew mi loolu nag partenariat bu yàgg la ñu ne di ñaanal yàlla jàmm ndax immigré waaye daani doole fulla ak fayda ak jom lépp ci Sénégal ñoo ko tabax ñooñu nag bu ñu nekkee suñu mbokk ne ci biti di le suivre à travers le monde mënoo jox ku ne loxo waaye xol mën naa yëg a ñu fi nekk ñëpp bu ma nuyoo Bourkhane ménage naa ko nuyu di la di nuyu Modou Anta ci ñun la bokk yow mii ci ñun nga bokk lu jóge dañ lay woo waaye Modou même bu nekkee ci kër gi liggéey suñu jarbaat la suñu rakk la mi ngi góorgóorlu mi ngi def effort te as gor day ñeme jël say responsabilité te ki la gën a ñàkk wërsëg mooy koo xamante ni saa yu tàngee ba arrière wala bëggul dara waaye li li nga bëgg te ànd kook as gor bul xool bul déglu man li ma ñor mooy structure Gaston Production ki ma ñor mooy Makan Mbengue ma ñor ñi may àndal ci promoteur bari nañ sumay xarit lañ te li ma ciy jàpp fi ma ci toll ak moom ñi ngi ci tollook moom saa yu ma jógee ñooñu dana jóg ànd ak moom ak sénégalais yi ko bëgg ak ñaam cofeel ci moom ak kilifa yi ni ci ginnaaw te gisoo leen daan ànd ak Gaston daan ko jàppale wiññee ko tey jii ne ci sunu ginnaaw du jàppale yàlla mi am fay na leen fay yàlla ni yàlla taxaw en tout cas daal Lamine. du woon poul bee bi ñu ngi ci. xam nga nag doo fi wax naan tey wala suba ñu ngi ci presque mën naa ne trois combats yi taxaw na. mu des benn mais damay wax ni du ñu pousse kenn ku pare ñëwal ku ci sa wërsëg na di ko jël nun amuñu suwaa ci kenn ki ko war a jël bu ko jëloon bu dee subal daañu ñëwaat fii bu dee semaine la daan ñëwaat fii mais l'essentiel daal ñi ngi ñaan yàlla sunu borom may ñu ci année bii nu jëm ci li ñu bëgg ak yéene wax na la ko sànq ci bàcc saraas bi am nañ ci yéene yàlla na ko yàlla mottali waaye n'empêche que noonu non pour mu bëree combat mais bu keneen bëggee ñëwal sa dañ bëgg mu relancer wu. defaraat carrière am ñëwaat ci làmb ji bëggoon nañ ko tànte bu njëkk am na combat bu mu roon bëre yàlla dogalu ko mais li ci kanam rawul bi ak ñeneen Jackson. ñi ngi ci problème mu adversaire no xam nga as gor bu gore ni yow da gore ni moom Jackson amul problème mu bëre problème mu adversaire la am. waaw bu fekkee mu bëgg xam nga làmb ji léegi da ngay bëgg lii ki nga bëgg du la bëgg waaye noonu bëgg nañu ko taxul tam Gaston production téye ko étant d'autres bari na mbëri ñu nekkal di nekk ci aada faas mi ngi yore avance Gaston Production même bu nekkee dafa nekk ci sanction ñu koy ñaanal yàlla wér waaye li ma ci neex gis naa sanction bu ne mais dégguma benn yoon mu déraillé mu dérapé dañ la sanctionné dégguma ko mu wax kàddu gu ñagas ma lay wan ni am na encadrement te xale bu yaru te pourtant biñ ko ab biñ ko ajee ménagère am def ci ànd ak courage accepté nangu ni juum nañu kon Ada mu ngi ci sunu ci ñun ak yeneen yi war a des Zarko am na lu séq ak moom. sunu nawle la Eumeu Sène gis nga ki démb dañu dajeeg moom waxtaan ñun amuñu problème ak kenn waaye lépp luñ séq ni dañ ko défendre ci yar ak teggin di wax rek. kon mhm. xamaguñu xam nga tey bu ñu génnee di wax dañuy wax ci ginnaaw CNG te ñun li CNG dogal ànd nañ ci di féliciter président Bira Sène ci turu Gaston Production ci courage am ak jomam. ak nangoo liggéeyam ak li mu def parce que bi muy ñëw boo fàttalikoo combat yu bëri mënu woon taxaw ñi wooyee les VIP ak ñëpp dañ dajale woon ci Lamine Samba bëgg combat du ma tay di ko wax ñoom ñëpp dajale woon seen bopp di saisir pour état bi nu mu ci jàppee partenaires yi ñëw ci retour Gaston production ci la mbër yëpp commencé waat di bëre relancé wu bi Gaston ñëwaatee ñu continué ba léegi di ci liggéey loolu ñu sant ci yàlla parce que nit ku ne am na nag loo xam ne suñu borom defal nag ko bi Gaston dellu see ci la lépp ñëw kon Ah, problème mu soit ci diw lañ bëgg mu bëre wala diw bëgguñu mu bëre mais daal li ma lay wax mooy Bira li ma gën a neex ci moom njiit su nekkee dañ laa jiital nga xool ni man maa jiitu nga toog ni làmb ji day dem ba yenn heures yi mu jaral la mbër mi ko bëre nga sanctionné ko sénégalais yëpp xale bi ànd ak yar dégguñu mu sëqat xam ne juum na nga dellusiwaat ñu ni lii nga ne 19 heures et quart damay siffler grand combat kooku état du Sénégal amel na ko njukkal donte dañ ko fekk muy liggéey parce que régime bu bees la ñu ñëw te la ñu bëgg ma nga cay dox réew mi ñor na ko donc ñu ngi félicité président Bira Sène di ñaan aussi le ministre des sports association authentique de lutte benn parti la ci biir promoteurs yi la Bira Sène nekk loola leen ñor ci lañ ànd à 100 pour cent association des promoteurs mooy association authentique bi Modou Dieye Sène jiite li Bira Sène d' accord ci la ñu d' accord Gaston production ci la d' accord et tant d' autres Bamba Faye ci la ànd bari nañu moom it suñu xarit dañu koy ñaanal yàlla mi ngi jëm ci combat Bamba waroon na teew fii tey moom it mi ngi ànd ci li Bira kon yaakaar naa majorité bi li ëpp Bira la ñu àndal d' ci ni muy liggéey ak taxaw bi muy taxaw làmb vraiment ñi ngi ñaanal yàlla président Bira Sène mu toogaat ci bopp làmb ji liggéeyal ñu te yow xam nga ni man Abdou Lahat mi wala Gaston production bi wala association authentique ku ñàkk fayda nekku ci bu ñu gisoon lenn luy défaut ci biira Sène laa la wax balaa kenn di wax ñu wax ñu ngi liggéey CNG bi yëpp laay waxal ci kaw ba ci suuf directeur administratif muy Ndiamé Diop damay wax toujours su ko neexoon chaque jour mu yàq làmb day war a wàcc 16 heures toog ci foofu ba 19 heures ndax benn këyit benn xale bu manqué ci mbër wala dara mu toog ak yërmande ku mel noonu nag bu maîtriser liggéey bi ànd ci ak yar ak teggin ñi ngi ñu bëri ñi leen di dégg saa yu ñu demee ba mandat CNG war a jeex rek ñu tëb di yuuxu mais am na ñu bëri ñu may gis ñuy laaj CNG xam nga boo joxe CNG rek mooy mooy làmb ji tañ ko ko ku am fu mu bokk am fu mu dëkk loo koy joxe làmb. mënuñu yor ngay jël jox làmb ji dénk leen ko. Hmm? ngeen nañ la jox làmb mais Bira Sène dafa dafa gën a jàng ci Sénégal mais Bira diggante Dakar ba Kaolack ëpp fi jàng mais confiance dañuy jël wóolu nit jox ko ko biñ ko joxee ba tey mi ngi koy doxal te heure boo ko soxlaa gis ko ah bu njëkk lu ñu waxoon bi na eh, ana Alioune Sarr dañ ko Alioune Sarr amul défaut gisuma ñoom défaut bu tax ñu ko topp mais dañoo wax wax ba mu jóge fi waaye léegi ñi fi nekk dañ ñaan ëpp ñu ne Birane Diop koo sampul noo ko fi jëlee bu wërsëgam jeexee ci la fiy jóge mais ñii di wax majorité bi yëpp ak li nekk ci ginnaaw lépp ak ñiy campagne ak dem ci ministre des sports yëpp dara réeruñu fii la ñu nekk ñun daal Bira ñu ngi ci ginnaawam d'accord nañ ci moom te buñ ko doon voté tey dana bari ñu rus. waa waaw waaw di kontaan ci li ma laaj très bonne question Lamine wolof day tubaab bi day wax ne l'expérience face. faire la différence euh, may bëgg a wax aussi di wax ni lac de guerre l'expérience face à la jeunesse mm-hmm. amul ñu problème ci lac de guerre mm-hmm. ñu waxoon ci lañ nekk tey liñ ci gën nekk mm-hmm. lac de guerre ngi ci. bu ñu amee adversaire bu mu war a bëreel muy tey muy suba day bëre ak moom ñu ngi waxtaan lañ waxoon ci la ñu nekk ba tey jóguñ ci sa Lac de partenaire la ñu ànd ak moom fas yéene liggéey ak moom mooy li ma lay wax rek li ci kanam daal rawuli bët ci diir bu gàtt ñi ngi ci ak moom mais amuñ choix nag ci kenn ci fuñ jëm parce que fi ñu jëmee jërul wax kenn la Eumeu Sène hmm? day gunge non Eumeu Sène sunu frère la Eumeu Sène bu leen delloo ginnaaw tuuti xool diggam ak papam Gaston doomam la ñu jaar fu ne makkan di frère mais nit dafa tolloog bu dara amee këyit nga am ko ak nit da nga woo sa frère waxtaan ak moom cest à bu jëkk mag ñi dañ jaar woo kaay leen ñu waxtaan waaye léegi da dégg teel rek ñu jël saa ci presse bi andi ci coow andi ci lu ne barki mu ñoo reerandoo reerandoo macha allah wax dëgg yàlla reer bu ama am solo wax dëgg yàlla waxtaan déggoo ci kaw kàdd moom mu dem ki ko war a tëgg nag te war koo tëgg bu dee moo combat ak Balla la na dem bu dee moo keneen na dem ñun daal on est là. libéré ngeen. kenn li mosuñu ko téye ba moom contrat. loolu nag waxtaan nañ ci ak moom moom dana dem seeti ñi mu war a séqal bu parewul it ñun bëgg nañ ko waaye xëccoowuñu kenn bu joolu bu ñu waxee ci benn mbër bu amagul combat sax mu am comme bari na ci mbër yoo xam ne léegi boo leen nee Gaston production rek ñu daw ñëw ñu dëgg leen bu ñu wax ci ñëpp ñëpp amandoo combat loolu la ñu yéene ñëpp ah ah non non ñun bu ñu nekkee si xam nga lu nekk da nga ko yëg keneen na ko yëg waaye fi mu nii nag xam nga lu xew. caabi lawbe. caabi ay waay féexal sa xol xol ah original neexal bu te na gu. original pur jus de fruits. Sénégal Café kan gi yegsi na